jilengo waaw waaw Papa Boy Djiné ngi noonu ziar naa la. delloo ci loo ne. maa ngi nii. yaa ci jàmm. maa ngi si jàmm baax a baax. ñu ngi si kawam de. waaj nañ ni ñu war a waajee. tey bésu lu mu laaj. waaw lii rek la laaj ni ngeen ma gisee rek. loolu rek la laaj. làmb tey dina am xeex. ah. làmb dina am xeex tey. lamb bi amul xeex est am na si arène bi. am ñoom day ñëw jàpp daal. waaw bu ma ko yàlla joxee loolu laa bëgg sax. waaw xeex la gën a. làmb la la làmb la. làmb daal bëri door wax. lépp lu làmb ji laaj loolu dinañ ko def bu ñu duggee si géew gi combat moo ñuy wax lii la làmb ji laaj ñu def loolu. mais pare nga fi pare naa nag. jàpp ñu la ci gàllaaj. déedéet. wala jàppaguñ la. déedéet. si kàttanu yàlla. waaw ci gàllaaj. loolu moom wóoruma sax. Ah. man daal en tout cas xam naa ne man maa ngi ci làmb ji. si kàttanu yàlla maa ngi ci làmb ji. deux Ziga nii rek. ci loonee. maa ngi sant yàlla bu baax. naka dëkk bi. waaye dëkk bee ngi nii rek. mais kaw ñu gis la nga ñëw combat bi xeexuloo bëriwuloo daanu affaire bi yomb nu mu demee noonu. non loolu day am si mbër ñenn saa yi nga ñëw entraîné loo xam ne yow jàpp ngeen ni yow mbër bi booleen bëree rek day neex far làmb ñëw wor loolu moom du dara. su bàyyi dañ ne da nga ñàkk doole ci combat bi. non ñàkk ma doole excès de confiance moom moo daan lu ma entraîné moo ëpp ma bëgg ko exploité loolu rek moom ma daan yàlla xam na loolu. dara daanu lan nga def lu lu jàpp loo jàpp ne moo la daan ci bés bi sa diggante Reum. excès de engagement mooy man pour man waa ji waruma mun a sax yëngal yàlla xam na loolu su ma koy wax nii sax nit ñi dañuy yaakaar ne leneen la. mais yàlla yaakaar Reum mun laa yëngal. yàlla xam na ni bu ñu jaadoon ma dóor ko 10 1 am na 1 ba pare bu ñu jaadoon ma dóor ko 10 1 laa ma ma day wor ñun dañ koy. comme 2 nga ne boo jaadoon nga dóor ko 10 1. non non yàlla na ko yàlla suturaal ndam li yàlla na ko jik loolu yëpp garaawul mais xa ku ma xam xam ko ah kenn du teg ci moom mais ku la xam-xam ko kenn du teg ci moom mais làmb day demee nii yenn saa yi nga entraîné ba foog ne yaa mën ñëpp nga ñëw làmb wor boppam mais dañuy ñaan rek la na suñu borom suturaal ñu ngi si carrière bi ba léegi. deux Ziga fu mu toll fi mu toll. instant ñu ngi wax ay combat dañuy ñaan rek feeg suba affaire yi taxaw presque. léegi nga ci combat bu la gënal. waaw am na am na am yi ñu yi ñu gënal. comme ñan lan la ci limal ñoo xam te gënal leen. instant yii nii kon xam nga promoteur yi na ma ko dégg incha allah kontaan naa ci waaw dañuy ñaanal nag Agogo yàlla suñu borom suturaal ko may ko ndam ndax igri bi instant yi nii soxla nañ ndam boo xam ne waaw loolu day am nag xaw na métti trop mais dañuy ñaan Agogo yàlla sauver l'honneur bi rek yàlla nañu yàlla suturaal rek may ñu ndam kon moom lañu indi dañ koy ñaanal rek yàlla nañu yàlla suturaal rek may ñu ndam lu kawe njottam incha allah baax na ci arbitre bi sifflé na combat bi dox ci l'enfant de Kër Baba ak Boy Bissao l'enfant Kër Baba moom la ñu jàkkaarloo Boy Bissao moo ñu wan ginnaaw ñoo ngay lewaatoo di demee wet Papa Boy Djiné teel naa sumeeku Papa Boy Djiné teel naa sumeeku ah l'enfant Kër Baba Boy Bissao Boy Bissau moo ñu woon ginnaaw l'enfant rekk Baba la ñu jàkkaar lool Papa Boy Djiné mi lu ko dal l'enfant rekk Baba génn na léegi géew bi arbitre bi sifflé waat na Boy Bissau l'enfant de Baba Boy ngi dox ci kawam bi na ko mu génn arbitre bi sufle na l'enfant de Kër Baba Boy Bissau ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar l'enfant de Kër Baba na léegi l'enfant de Kër Baba Boy Bissau eh xale yaa ngi xeex Boy Bissau dóor na léegi l'enfant de Kër dem na. eh Boy Bissau jël na ko l'enfant de Gueule génn na bi dellusiwaat na Boy Bissau ba duñ la doo nga daanu atul daw na jël ko l'enfant de Gueule Baba Boy Bissau kat appi l'enfant de Gueule daanu na Boy Bissau daan na ko Boy Niang delloo siyaare bu wér ci loo ne sant borom daaru di mëntu mbër mais tey naka ngeen andee Papa Boy waaw Papa waajal nañ ko li ñu ko war a waajalee xam nga di ko ñaanal ndam liggéey nañu ànd ak moom entraînement contact ak moom lépp instant yàlla moo des ko waaj di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ñu gis muy bële xale boo xam te ne dafa rapide muy Bébé Bismi tey bés bi lan la laaj. bis bi dal la laaj dal def fulaak fayda xaw ci li mu jógee xaw ci li ci ginnaawam ndam rek moo ko war tey incha allah si kattanu yàlla ñu koy ñaan yaa sutura xam ne ko ndam Seydou Guèye ci barke borom Daaru. foo tool. maa ngi waaj di liggéey rek di meññee. yaa ñu ngi lay wax combat. waaw ñu ngi wax combat ñu wax sama combat maag 2 Ziga. 2 Ziga jënd glace. promoteur bi woo na ko tey mu jënd glace. non waxul waxul lool de nee na ñoo wax ay combat mais nañ ñaala yàlla mu sotti. war nañu ko sama combat man ak moom mu daw. Lamine Sika dara daw. ragal la man ak moom man ak moom adversaire de taille dafa ñu bëri la jógee man trois victoires laa tegale maa ko mbooloo fuuf fuuf sax fuuf duñ benn sax. Lamine Sika naanaan la. bëggu ma ko de promoteur bi moo ko bëgg moo ko ko mu dégg ko. bu nangoon suba suba nga jël soo ma ko joxoon stade bi léegi ne ma ne moom ñu tolloo mu neex mu tusee mu neex. waaw loolu de am na moom. trois victoires laa tegale trois victoires laa tegale mbër bu nu ma bañ stade yi ku ma bañ nag maa ragal ku may daw nag maa ragal ñoom ñëpp nag ku may bañ nag maa tàppet. mais bu dul deux giga. ah bu dul ah, ku baax na ku ñëw ma bëre. deux giga ñi ngi wax ay naan ñaamandoor ba bëgg a bëreeg liis liis ma tëkkuwuma ko man ak moom bokkuñu yoon man maa sama làmb di bëre sama làmb faaluwuma kenn nekk sama yoon bàyyi ma ko sax xel wóor na borom daaru man ay deux Ziga ay Tapha Mbeur ku si daan ñooñu ñoom ñoo samay morom ñoom Tapha Mbeur foofu laa bokk dégg ma est-ce que. maa ay dem Mor Kankang ak kii ak Boy Yeumbeul foofu laa bokk ñoom ñoo sama morom si làmb ñu laa xaaju pare ma bëre ñoom. kontaan naa ci yow. a bëgg. dal jàmm baa ngoog ci loo ne. tawféex. mais ñu gis leen combat bi yàggoon na def na presque at wala at ak lu teg tey bés bu ñëw bés bu tey lan la laaj. bëre rek bëre daan incha allah. mais dañ la gis tey am confiance mu ëpp yaa ngi daw yëngal supporter lan la dañ la ko dee wala. a xale lañ su fekkee ñun entraîné nañ ba yëg suñu bopp yéen dañ ko war a wane ak xale lañ te ñun xam nga dañoo nekk tey ci nii si yaakaaru làmb yaa ngi comprendre par rapport ak moom moom xam nga dafa yàgg si yoon bi. ku def 14 victoire boobu ba léegi mënoo lekk million yee xam nga man ma gën a nekk xale. lan moo la dugal ci moom. waaw mais champion la. ma cee may tooyal rek. 19 combats. 14 victoire bëre ak ay ndaanaan waalo waalo boobu. te moom daanaan la champion la loolu waaye Faa Gueye Mbow. tey nga moom mu ñëw def tekk tuusul. munul mu waxul munul munul. munul fecc ah. looloo tax tuusul. ah non munul fecc. combat bi tey dina xeex. boo ñaaw ziar. waaw sant. ci loo ne. waay nice. mais tey ñu gis sa ambiance su bariwul lu waral loolu. li waral loolu mooy concentré la lamb ji laaj. parce que suñ kër laay bëree. fils. lu des lu des. ah yow xam nga lu des. lii nga ko. dara desul. mais tey ñu gis ngay bëree koo xamante ne ndaanaan la. yàgg na ci làmb tey bésu lan la laaj. waaw bis bi moo laaj concentration moo dama concentré wu. ñëw wane sama bopp ci kàttanu yàlla. xam nga làmb ji tey fan la la mën a yóbbu. a yóbbu. fu may mën yóbbu su ma paree dinaa la ko wax. Ah. kat ne waaw ko doomu daanu. Baye Ma Ndiaye agogo. Baye Ma Ndiaye daa mel ni jàppante bi la gënoon bëgg waaye xeex bi enjeu woon na ko. Baye Ma Ndiaye Ma Ndiaye damaa bëgg nga bàyyi xel ne ki nga bëreel daanaan la ci làmb. tàkkusaan bu ne am na ko fi moom agogo. agogo Baye Ma Agogo Baye Mandiaye Baye Mandiaye defal ndànk moo ngi koy biij di ko jaay doole Baye Mandiaye da ko bëgg a mbot defal ndànk Baye Mandiaye Agogo Baye Mandiaye stade baa nga yuuxu Agogo naan ko Agogo Agogo Baye Mandiaye Baye Mandiaye nag fee bëgg a ñëw jëlee waaye combat bi du yomb ci yow Agogo boo ko gisee da nga koy xeeb waaye na mu toll doole ji ëpp na noonu war na ko ndomba ko koo tël ma koo zongale Baye Mandiaye ngay dóor Agogo Baye Mandiaye ngay dóor moo ngay bay Agogo Baye Mandiaye daa dëgër waaye est dina ca génn moom Agogo Agogo Baye Mandiaye est-ce que dana ca génn Agogo Baye Mandiaye Agogo Baye Mandiaye daanoogul Agogo daanoogul ba léegi eh Baye Mandiaye Baye Mandiaye boo xoolee ba Agogo génn fii Baye Mandiaye boo xoolee doomu penalty ci làmb daan na ko ma Mandiaye daan Agogo Baye Mandiaye daan na Agogo xoolal ma mbooloo mi kàggu jëlal ma mbooloo ma Baye Mandiaye àndal Baye Mandiaye ngoog tegaat na jéego ci làmb Marxayala waa Géejawaay waxoon naa dinañ ñaanal jàmm sant waa guy gi ñëw ba fay damaa nekk si yoon nee naa leen boobu ma naka daan naka jël sama baaxal ñi aw ba seen fay gis ngeen mobilisation bi tey rek sama mag jaadu na laay bi daa góor dama ko ñaan saas forcé ko dama saas ngir yàlla na ma may saas xale la waaw damay liggéey damay liggéey bi laay man damay liggéey moo sa kanam laay bi daa góor kaa ñaan saas ngir yàlla na ma may saas kan kan ci laay bi daa góor non may ma saas koo buumoo du ko ah. Baye Mandiaye a ngi noonu. Baye Mandiaye a ngi noonu. xool leen mbokk yi mbooloo moomu àndal. Bégué ci loo sant borom bi. tey nga ñëw wàccaa ñu ko jël naa gis tey nga ñëw waa dajal Boy Niang lu waral nga jël Boy Niang. waaw ñëw rek pour confirmer ah. parce que comme dégg naa ne xam nga mu ngi def ay performance gëj naa ñëw ci làmb am lu ma moom ci làmb war ko jël kese moo tax ma jël ko pour ñëw duma ko daan wane waat sama dina yomb ndax nee moom làmb dafa xam fi koy yóbbu moo tax tey làmb du yomb sa diggante làmb ji amul la làmb ji amul fu koy yóbbu man dafa am lu ma jël te maa moom ci làmb te dama koy jël si moom est-ce que koy gis waaw làmb tampet tampet arbitre bi sifle na arbitre bi il est 19h55 20h moins 5 bébé Bismi moo ñu war ginnaaw Papa Boy Djiné la ñu jàkkaarloo Djiné bébé Bismi Papa Boy Djiné dafa ah, décidé tey mais na def ndànk bébé Bismi lay door na ko léegi ëttal ko mu génn saako yi dellusiwaat mu doowaat ko mu génn waaye ku mu jël ba ba ba Papa Boy ba Papa Boy Djiné door dafa mais papa ah, xeex la indi. bébé bismi papa booy jinne. Ah, xeex la indi. papa booy jinne moo ñu féete à gauche bébé bismi lañu moom lool. papa booy papa booy jinne dafa bëgg a xeex ak bébé bismi. waaw lim bismi jàppante bi la bëgg. bébé bismi jàppante bi bëgg jàppante na ak moom. papa booy jinne bébé bismi. mbaa du ko doomu daanu jël na ko kal na ko doxay daan Bébé Bismi daan na Papa Boy Djiné Bébé Bismi daan na Papa Boy Djiné kàddu Bébé Bismi daan na Papa Boy Djiné Bismi daan na Papa Boy Djiné Bébé la dóor la ko bañ mu wan mbooloo mi ni leen dama am problème wan sa adversaire ni ko dama laa ragal te faalewu ma la ju fekk na lamb doo fee lamb boo jëlee génne dawul dafa wute kii doole affaire bopp la affaire bopp ma jël ko ma xam ne su ma taxawee du ma doy damay daanu parce que gisatuma woon ma reculé ma reculé génn su ko si complexe parce que xam nga ndam rek la ma soxla man du ma ragal si dara mais dama conseillé musuma ànd ak ay mag mag ak may doog andi si lamb musuma ànd ak ay naa sama loxo coach laa wax ñi nga àndal di di wax sama mbokk sama mbëri na sama borom ña ma maa ngi leen maa ngi leen xam nga lii làmb la samay naw la si mel ni agago ak xam nga ñoom ñëpp bilaay walaay non yàlla baax arbitre bi sifflé na Boy doomu Jalaaw Boy Niang doon doomu Jalaaw doo jàpp ko jël nañu jàppante ñoom ñaar doomu Jalaaw Boy Boy Niang Boy Niang écurie de lutte Balla Gaye Boy Niang moo ñu wan ginnaaw doomu Jalaaw la jàkkaar lool ñoo ngay xeex mbokk yi grand combat baa noonu Boy ñaa doomu Jalaaw doomu Jalaaw dóor na léegi doomu Jalaaw nga koy takk doomu Jalaaw takk na Boy Niang doomu Jalaaw takk na Boy Niang doomu Jalaaw takk na ko Boy Niang ras na doomu euh, Jalaaw doomu eh, caxabal ba daa sori koy ca da koy caxabal wala da koy tegal 16 wala doomu Jalaaw lu mu koy def doomu Jalaaw Boy Niang doomu Jalaaw moo ngeem lu xonk bu weex bi am lu xonk li doomu Jalaaw Boy Niang. ñaa numéro 2 ak doomu Jalaaw. nañu commencé woon yeggalew ñu ko ñooñu accélération waaye ku ne ñam nga sa morom Boy ñaar 2. Boy Niang moomu Jalaw xàcc na fu mu koy teg Boy Niang ngay bi fu mu teg. waaye combat bi mënut a yomb. Boy Niang 2 ñaa ku ci ñoom ñaa ku ci nekk dafa am ci loo jógee. lamb ji dafa am fu mu la war a yóbbu. fi mu toll ni épreuve de force bi. Boy Niang numéro 2 doomu Jalaw. Boy Niang daa jàpp ndengeñ. da koo bëgg a da koo ndànk Boy Niang. Boy Niang doo kalaat na ko kal bi demul. doomu Jalaaw ngay dóor ci mâchoire ba fàq na ko. fàq doomu Jalaaw Boy Niang. ñoo ngay xeex. doomu Jalaaw Boy Niang waaw waaw. indiwaat nañ seen bopp lu xew. abi bi àtte na. Ardo Ardo. Boy dem na Ardo. Boy Niang dem na Ardo. Boy Niang de doomu Jalaaw. Boy doomu Jalaaw. Boy Niang doomu Jalaaw. doomu Jalaaw bu ne nii sengoor yi la jàpp waaye Boy Niang de am na loxo ci ngeen mu na lu mu nar. doomu Jalaaw. Boy Niang de doomu Jalaaw. muy ñaar deux ak doomu Jalaaw. ñu xeex xeex mbokk suba prince moo fi woo. drapeau Bougane Gueye dox ci diggante caatu booy Bambara ak ki nga xamante ni nii mooy Modja. mouvement bu mu def génn saako yi moom ñaa booy ñaar deux ak saako ya. ak doomu Jalaaw. doomu Jalaaw Boy Niang drapeau Moustapha Moustapha Meng wañaa do doomu Jalaaw wañaa do doomu Jalaaw drapeau Basirou Karona fi mel ni dañoo sonn di noppalu waaye drapeau Moustapha Meng doon dañoo tegante bopp ku ci nekk dégg sama digg géew gi diggante Papa Boy Djiné abi bi àtte na ñoom ñaar ku ci nekk am nga carte avertissement keneen ku ci am benn làmb ja jeex ñoom ñaar kenn ku ci am làmb ku ci am benn làmb ja jeex fi mu toll nii max nil ngeen gën a jege. lewaatoo Boy Niang ngay mépp waaye demul seen lewaatoo bi dafa sori ñoom ñaar ñëpp kenn bëggu daanu ku ci nekk yaa ngi cokkaas waaye dalul danoo sonn ku yooyu amul impact wala book bu daloon sax du def effet. arbitre bi àtte na max ba jeex na wala làmb ja na max niil max niil kii gis ngeen lii la leen Fallou Ndiaye fi nga xamante ni mooy arène national dox ci diggante doomu Jalaaw ak Boy Niang ku ci nekk am nga quatre avertissement ba ci cinquième ba temps ba jeex ñu max ñoom ñaar ki nga xamante ni mooy Bébé Bismi daan na fi ki nga xamante ni nii mooy Papa Boy Djiné mbokk yi li leen àndoon ci Wassare Lamb di leen dox di daje ba beneen yoon ci Wassare làmb jaa ngeen jëf di leen fàttali nag suba Prince moo fi woote fii ci arène nationale lamb ju neex dox ci diggante caat ak Modja